ci région bi ñu dëkk nag di la grand maire Barthélémy Dias ñu teg nuyoo bi si loxom ñu séddale ko ne collectivité territoriale yi nga xam ne waa yeewu yëpp ñoo fa nekk ñu tamit ñi nga xam ne ñoo toog ci kër yi itam di ñu dëkk merci monsieur le maire Abbas Fall le patriote fi ñuy commencé nag ñun suñu wax mooy soppi loi président Macky Sall euh, ci lii xew fi nii heureusement ba président Khalifa wax na ko ne mbir mi nekkul sa problème mu liste mais liste yi tamit problème mu liste mais liste yi tamit mënuñu ko ote mënuñu ko dem ci wax ji dem li tax ma wax

ñu ñoo mottali c'est la loi ñu ñoo mottali c'est la loi ñu toog ba ci yàgg man c'était hors de Dakar. boo ñu ne ñu liste yeewee askan bi commune bu Sam Notaire ak commune bu Golf sous-préfet rejeté na ko ma départ ndaw si ñëpp a dem yóbbu cour d'appel ñëpp yóbbu seen i préfet man Ahmed Aidara keroog dama ni affaire bi nan la demee waaye yéen demande nañu ne ñu dem leen sous préfet demande nañu ne ñu dem leen sous préfet demande nañu ne ñu dem leen ngeen ñibbi ba suba ngeen ñëw mottali parce que da ngeen fi yàgg ils étaient six ñëpp dem ci ëllëg si ñu ñëw ñëpp ñu jox leen possibilité ñu mottali waaye yéen ñëw ñu leen yéen toog leen ne man Sam Notaire laay milité fa laa dëkk. gortu na ñoom fi ñu fa dogoon du gañe ñun ñu wax loolu sax la ko Macky Sall yóbbu ginnaaw Tambacounda dañ koo affecté ma ñëw ne ko suñu liste yi liñ may expliqué lu mu def SEDA bi fa nekk nangu ne c'est nous qui avions demandé ma ne ko qui est mu ne ma la commission ma ne ko elle est composée de qui et de mu ne ma ñun SEDA le sous-préfet lii mooy commission. c'est nous qui avions demandé au mandataire de rentrer ba nous nous mais bi ah, nous sommes tous les plus mais nag ci le commandement territorial par force nous sommes tous les nous sommes d'appel def fo envahir feu nous sommes ñun fa lañ dëkk ñun ba pare dëkkuñ fa ñëw dëkk ay Dakar bi fa la ñuy deux jours par force mu mujj taxaw nañu waa garaaw kaay leen ngeen mottali parce que suppléant yi mënul ñàkk waaw mais ñun kay mënu lañ tey ñu ñëw Macky Sall bëgg ñoo gëm loo nañu liste si élection majoritaire mën na toog suppléant dem fële tamit titulaire mën na toog euh, euh, suppléant dem fee tamit suppléant mën na toog titulaire dem gouvernement territorial yi benn la ministre bi fi nekk tey dara sensé wu préfet ñoo ñu bëgg loolu jàll nit ñi ne nag dañuy ne pour wane ne lii du jàll tey du jàll ëllëg ay code waxuñu ko ak arrêté ministériel dayu ay mooy constitution moo wax ne képp koo xam ne am nga lu la nit ñëwal nga taxaw fii parce

eh gis nga abbas kii yàlla moo fi ne subhaana wa taala ñi fi nekk la ay non boo géré maire yi te àndoo état si archive leen yow mii amet yaa ñu beneen kii ak ay migration bi ne leen yow mii amet yaa ñu beneen kii ak ay migration bi ne leen yow mii amet yaa ñu beneen kii ak ay migration bi ne leen yow mii amet yaa ñu beneen kii ak ay milliards dara defuñ ko fa ngay tiit di patpati il faut coopérer ñenn ñi di jaay ay mandat su yàlla dogalee ñu am majorité te dinañ ko am loi bi soppi woon ci député ko soppi ci mairie yi nga ne yow doo am ñaari nit nga dugg ci biir coalition liggéeyoo dara ñu liggéey ba nga doon maire Macky Sall bëgg a déstabiliser cette dynamique muy woo ay maire ñii ak ay centre commercial maire bu vision bi yeggul ci centre commercial mais kooku noonu defaree dëkk stade ba doo ko defar doo tàllaam doo def dara ñu lay di ay centre commercial ak ay nangam sax te moom ku ko xam ku ne xam ne vision bu gàtt bi Idrissa Seck ñu ne ko suuf si baaxul mu def mais moom il faut mu insister moo indi problème mu gazon yi tey fële na leen esaat bu ne yow am naa waat boo demee sa moo dem mu tuddee ko xam nga ne esaat bu yaatu kon dañuy dem da koy sawar xaw ma moom day passé pour soog daal di sawar daal laay wax mais waa PNS ñoom ñoo ko bañ ñu jógee foofu ñëw ci forfaiture bii ba mu jula ndax ginaar waxaale sa soxla président Macky Sall nit ñi dañuy créer ay emploi muy créer ay chômeurs. Sonko la ko njëkkee te boo demee sax xam naa moo siiw de parce que moom dafa am tur boo demee ñu bëree bëri liggéey nañ leen ci service yi ku àndul ak ñoom nekk ci administration dinañ politique par force boo gañewul delloo ma sama yëf inspecteur yëpp daf na leen politicien kii di inspecteur mu ne ko doo ko fi def Mame Boye Diao di inspecteur mu ne ko na nekk Bengelloune di inspecteur mu ne ko politique euh, Habib Niang mais chaque jour ñu bind ko ci journaux muy politique mu ne ko baax mais bu dee keneen la mu ne ko toog fi def capitaine Touré def enquête leer na ak leerul mu ne na fi jóge waa ji nekkoon fii nii seen TV daan def revue de presse ba waa ji yooyu Macky da ko doon saraxu deux mille sept deux mille sept Macky Sall di dugg biir Touba beneen borom musóor boo xam ne tey daa ànd ak moom ne ko am nga hélicoptère biir Touba ma démissionné mu naan ko waxal ak Ameth Je suis téléphone ñàkk fii ma démissionné mu may saraxu ma ne ko ma am beneen rajo diggante bi xëñu fi bul démissionné nekk à l'intérieur c'est ça Macky Sall mooy ànd tey ak ay nit parce que bokkuma de moom position wala gis-gis ne waa il faut éliminer ». fàtte na yàlla moo tax muy def yi muy def PDS 150 députés lañ ne la doo doo ko jiite yàlla nee na dinaa def nga jiite 17 millions de sénégalais nga ma du ma wax rek ci kanamu caméra yàlla ni kaay ma dénk la askan te sanak ci boppam la mbër mi di laal di ko nekk coowal marché bi jëleewu ci benn leçon day suuf rek taxaw naa non j'ai entendu l' appel de la jeunesse entendre dara. jëmm ju tedd ji fekk jël ko indi ko la ko jëmm ju tedd ji fekk jël ko indi ko récupéré ko indi waat ko teg ko ci séesam ne ko toogal mu toog mu joxaat ko sëñ Mountakha yàlla fi yàgg ci wér nguur gaa ngoon ca ma fii ay ragal ñëwuñu ñuy woo nag képp koo xam ne da ngaa dëkk banlieue ñun réunion nañ jéem sax publié nañ ku fa dëkk rawatina géejewaay gi ma dëkk. place de la nation incha allah faut montrer à Macky Sall que réew mi moomu te Macky Sall tam mu toog pacifique la parce que moom day dem il ko nekk day demaat ci Macron toogal gars yi duñ liir ñëw soxlawul marché ci ay cadavre pour jël pare c'est un pouvoir finissant yow sa moo jeex ñu ngi woon ñëpp Mali barki démb bi mu wootee ñëpp le mandat de trop boobu moom du ma ci wax. ñu lay laaj njiitum réew. ñu lay laaj njiitum réew. ñu lay laaj nga war di dëj sa wax kilifa waxam day dëju dëjoo ko sax sa wax ji ne naan rek kenn xamul fi mu nekk ni yow foofu nga naa nii wii nii non dem fële encore naan doyaloo bu ma fii ku faatu même boo amee téeméeri at bàyyi fi mu ne ku dee bàyyi fi mu ne ba la yàlla. xam ne nguur boo gis day jeex man de fu ma doon liggéeyee ñi maag waa ji bokk ñu bokk gis gis-gis politique fuñ ma mës a laajee ne ma ndax yaa ngi ma ànd ma ne àndumaan la yeewi laa ne point am mouvement bu ñu naan géejawaay laa bokk point farumaan moom fa laay ne di wax di liggéey un contrat professionnel moo ñu lié bu yore dee mu fay ma mu dox ma dox yëpp nag ñi ngi ciy talaata noonu di wax naan ay xaw ma seen doom yi dee diine ñoo fi gis laa la wax pour mu am li mu am tey ba ñun ñu toog fii def suñu jàkka yi kilim ko ba mu sedd kuy ay bakkan rot rotte Uhud rotte Badar rot rot te ñoo ñoo ñu gënoon a jege yàlla foofu la réew mi toog Macky Sall mi il faut nit ñu jóg jàkkatal wax nañ parce que ñoom ay régulateur wax nañ

te ànduwaay dañ ko nangul ñi nga xam ne taskatu xabaar lañ te ànduwaay dañ ko nangul ñi nga xam ne taskatu xabaar lañ te ànduñoo ak Macky ñun ànduñoo ak Macky allahumma salli ala